xam nañ ne euh, dafay sobe ay bakken yu bëri 2017 nag euh, gouvernement bi tàmbali ay investissement yu am solo jëmale ko ci taxawal siège u euh, SAMU national ci Dakar bi ñu taxawalee dakaar ba pare ñu ne loolu doyul président de la république daal di joxe ndigal ne fépp ci réew mi bëgg na ay SAMU taxaw fa maanaam muy nekk ay antenne ñu def euh, benn antenne ci euh, Ndar mu ëmb région noor yi mu di Louga Saint-Louis ak Matam ñu def benn antenne ci Kaolack mu ëmb région centre mu di Kaolack Kaffrine ak Fatick programme boobu nag ñu koy wëyal ba tey ñuy ubbi antenne région Diourbel waaye yemul rek ci Diourbel ay malade dinañ ñu jóge ba euh, Linguère am na sax ñuy jóge ba Ourossogui ci Matam sami du def liggéey bu am solo boo xam ne tàmbali na ko balaa ñuy samp antenne bi fii parce que ñëpp xam nañu ne Touba dafa nekk dëkk bu am solo ci Sénégal ak ci euh, àddina mu nekk deuxième ville en terme de population ak même ci wàllu économie donc euh, dafa soxla jumtukaay bu mel nii lii nag moom dafa nekk loo xam ne dañ ko war a sàmm gën ko dooleel parce que dooleel ko mooy di sauver ay bakkan li tax nag ñu tàmm Touba wax naa ko léegi Touba doyoom moo tax ñu war fi def investissement yu mel nii danañ ko sax yokk parce que gis ngeen ne président de la république euh, ubbi na fi hôpital bu bees boo xam ne ñetti téeméeru lal lay am ak yeneen investissement yoo xam ne ministère de la santé et de l'action sociale def na ko donc yooyu yëpp gouvernement bi dina ko wéyal ministère de la santé et de sociale dinañ ko euh, wéyal léegi nag ñuy ñaan population yi ñu jàppale équipe bu SAMU bi nga xam ne depuis septembre gannaaw màggal gi ñu ngi def ay liggéey yu am solo fii ci Touba. intervention yi wax nañ ko gis ngeen démonstration yi ñu fi def wute nañ ak. Euh, police wute nañ ak gendarmerie wute nañ ak sapeur pompier waaye seen liggéey dafa jaxasoo dañuy soxlante ba tax na euh, nga gis léegi ci démonstration bi nii waa sami di liggéeye ak waa sapeur pompier parce que accident yi am ci euh, tali bi bu policier bi deful liggéeyam gendarme bi deful liggéeyam simple habitant bi nga xam ne moo fekkee accident bi deful liggéeyam bu boobaa SAMU du mën a intervenir donc il faut que ñuy euh, joxante loxo pour que lépp lu jëm ci wàllu accident lépp lu wàll jëm ci wàllu yenn feebar yi maanaam lu mel ni AVC yooyu boo amee ñu faxe ba SAMU mën a intervenir le plus rapidement possible mais loolu wax nañ ko léegi ki fekkee dafa am loo xam ne moo ko war mooy muy teel di woote mais mooy aussi les premiers gestes mu mën ko defal boppam mais loolu dafay laaj tàggat te Samy mu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo pour que sitoyen sénégalais bu nekk ñu war la tàggat pour que boo yemee ci yu mel noonu nga mën a am loo def balaa Samy du yegsee thank you